jooju du ñu abyaat ji nag noo ko bindoon jëmale ko ci Masaalikul Jinaan di jumaa ji nga xam ni murid yi noo ko taxawal fii ci Ndakaaru muy sagub Sëriñ Tuuba bokk ci fay yi nga xam ne tamit suñ borom fay na ko ko bismillah nun sant nan santati nan xaadim rasul moom mi wan yoonu njariñ wi gaaw te gën jaaraama xaadimu rasul sa yoon wi daala neex te xew dëgg ko samp bam taxaw doy na nun doy ña ca kaw mooy leen ci xaadimu rasul ndam lii nga am tey biir dakaar jot na sa noon yi bu wóor ni yow sa mbir du nax du dóor kii maan nga xaadimu rasul jumaay masaalik yéem na tey noonee ni woon daañu la rey wallaahi yàlla mën a fay tey fay na xaadimu rasul bañ la jëlee ndara indi la fii ci dakaar ngir sànki la bis booba bis bu metti la lor nañ fa xaadimu rasul ba mu fi ñëwee noonu yaa ngi fat ci néeg bu la dem xeeñ taxat lu ñu xam ci tiis ak kaw metti teg nañ ko xaadimu rasul tiisoon na lool bam noon dafay wut xeexukaay kum jekku rey njool màkke bañ mu sooke ay aaye ko xaadimu rasul ña ko jëloon def ci saxaar buñ jël si waatoon biir dakaar ba gis jullit yëpp di xaar Cheikh Mountakha xaadimu rasul mu jóge Touba kuy mbindeef bàbbee ku ñëw ci moom di boof ñii dawi Kambureen ba Yoof ngir sopp Xaadimu Rasuul oto yi wër kook ay mataar soldat si ñëw ngir di ko aar muy bég di ree ak taar bi kaar buur fay na xaadi Xaadimu rasul ñii wuti seen ànd di suur mbedd yee siñ bi nar a jaar ñee jëli parfum yi di tuur ngir bëgg Xaadimu Rasuul mu woy Masaalikul Jinaan barab birus loo ko añaan wër na ko julli jàng ñaan ñaanal fa xaadimu rasul kenn mus la gis ci senegal jumaa ji toll nii ci misaal waa réew mi def ko seen alal lut gaay xaadimu rasul yii naari ñoo na ko sarax yi yii ta yegg far na tax murid yi ñoom dëkkee tabax jumaa yi ngir xaadim rasul ñaar fukki milliards ak lu teg lañ def masaalik ngir mu jag murid yi maase di ca bég tey sant xaadim rasul li nga fi dajoon ci wépp ay ak ña fi daa jéem lu la rey jumaa ji far na lépp tey jaaraama xaadim rasul ndakaaru giñ la doon sonal am nga fi ndam lu kenn amul yow ku la def morom xamul kenn nga xaadim rasul xasida yaa ngi jib ca kaw bernday yaat lool te leew penc mi yaa kum neex nga ñëw di dund xaadim rasul xasida yaa ngi jib ca kaw bernday yaat lool te leew penc mi yaa kum nga ñëw di dund xaadim rasul kafe yi tàng lool di fuur ndawal gi duuf ñuy jël di soor ku yegg si naan lekk ba suur tey sant xaadim rasul murid di ñoom seen mbir du yam moo tax li ñëw ci xeeti ñam kenn mun la xam fu lim bayam ñoo xër ci xaadimu rasul nun bu nu neexee zibile jumaa ju rëy lañ yeggale amul lu ñuy jéem ba tële nun koy xaadimu rasul président Wade na jox bërëb bi ban man koo tabax murid yi sopp nañ la ndax sa bëgg xaadim rasul lamp yi ak yoon yi ko wër makee ko liggéey ci lu bir yëgal ni sant nañ bu wér nun koy xaadim rasul ba si itam jàmbar la ngir mboolem liggéey moo ko yor muy nit ku jàmbaare te xéer soldaaru xaadim rasul jàmbaar la lool mbàkk yu fay yàlla na ko yàlla gën a fay moom xaat diwul booba ba tey ngir bëgg xaadim rasul xalifa yee fi jiitu woon defoon ci mboolem luñ amoon war na nu fàttaliku leen ñoo doon xaadim rasul Cheikh Sir Muxtaar moom itam am na ci ndam lu ñëpp xam yàlla na ko bur dolli ngërëm ci barke xaadim rasul Cheikh Muntaxa tey am nga ndam yu bokkul ak yang daa fi am yàlla na nga yàgg amee na bi bu wér Mbàkke mu sax mu mucc moo gaayi ko dar ci barke xaadim rasul saalihu gay badar wile dalal te tëj sa way wile daam raw nañi raw ñoo ñële kii man xaadim rasul asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndaji ki ñu tuddee falilu doy na tegtal samaana am tur wi xam le na boo di ma nga juddu ñu tuddee falilu doy na tegtal samaana am tur wi xam le na boo di ma dama xamul woon fu may xuusee ti ak gax ginnaaw Seex Bàmba yow nga ni tayyi wër ma damaa amee raggi xol amee raggi baatin